Salam alaikum la famille, Begenalen, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. pour faire que vous dogo setan, ou vous setan abonné go. Invitez-nous à ce que vous abonnez right now, c'est très simple, ni règle. Et merci. Alors gars, qu'est-ce que vous avez dit

xam ngeen ni bii bokkut ak bu Sadio Mané bi Salut tous 221 Khalifa général kullu jaaykatu dàll ba tay maa ngi ak mom mu koy jox dàll extraordinaire numéro numéro téléphone baa ngi Instagram baa ngi noonu daw leen gaaw alors tay on va parler avec Mia Guissé qui def buzz actuellement nek ndaanaan bu mag ko ken dotul présenter au Sénégal def ben clip bu nice bu bees tàq bari ay message loolu ak ben son bu neex machallah on va parler tout ça aujourd'hui ak yenn affaire yi parce que li ñu wax bari na Mia nuy na la. di euh, di nuyu euh, suñu mbokk internet bi ñu seetaan ñëpp di nuyu Sénégal xam naa namoon nañ ma mais ma len daw et qui do ko no face <laughs> parce que la <laughs> de alors mais rapidement dañuy débuter la carrière le parcours bi dans di aussi c'est important. man suis ngi euh, parce que musique dafa nekk sama euh, dafa Je li nga mhm. euh, ma depuis deux ans deux ans la doon dama doon ben benn euh, son Baaba Maal bi ñuy wax i dikam un an côté yooyu laa amoon euh, sama papa filmé ko d'ailleurs loolu la may rappelé tout le temps ni soo nekk woon musicienne soo nekk woon artiste dina ma donc fan nga tàmbalee sa carrière j'ai démarré ma carrière à Tambacounda euh, bi nga xamante ne foofu laa dëkk may nuyu sama waa dëkk Tamba euh, au passage. bëgg nañ leen tamba kunda. lépp foofu la tàmbalee euh, ma doon woy si si journée socio-culturelle yi sama école yi. di woy si ay concert concert mbedd et tout. kañ nga ñëw Dakar. après mon obtention du obtention au bac si laa ñëw Dakar pour vraiment continuer samay études mais en même temps ñu def musique. d'accord alors bi ma ñëwee j'ai rencontré un oncle bi ñuy wax Amary Guissé qui m'a mis en rapport avec euh, un frère, euh, Koul Mokhtar, manqué de passage. Nous formé un groupe. Euh, donc, nous voyons ensemble. À travers cela, nous avons euh, Khouman avec No Face, qui est l'un des meilleurs beatmakers du Sénégal, machallah. Nissan. Aïe, Agalé. Mon ligue trop. Donc, nous rencontrons. Euh, si la am projet ak wa journal rappé commencé parodie mhm. def sama No Face. Eh, yow Mia yow boy, wax No Face Tu mel sa xol bi day sourire quoi nga <laughs> No Face. sax fa ñu voilà sama sama sama sama carrière non la démarré. sinon lan mo la marqué sa carrière. li ma marqué bokku euh, euh, groupe bi ma muy ko Mabo maag sama maag sama ex borom kër. tey ex. waaw lu doy war baatu ex ci boppam moo soof. marqué na ma trop parce que foofu la ma nit ñi xamee foofu la nit ñi xamee mi yaa gisee donc ba ba tey ci nii. Euh, je sais pas vous mais moi su ma déggee ngay wax euh, groupe bi ma nekkoon muy les Mabo c'est un ci man quoi bien vrai que groupe ngeen woon mais man perso. Euh, considéré ma comme groupe Je ne ma comme groupe mais une personne quoi donc tey euh, quand tu dis vraiment les du groupe bi ma nekkoon ah, yaakaar tas na. est-ce que am nga loo regretté ci sa parcours ak si groupe bi nga xamante fa nga les Mabo. regretté ma si parce que ce que je tey moo def la femme que je suis. Mm-hmm. cette femme qui a la rage de réussir cette femme qui est une porteur de voix. Masha'allah cette femme bi nga xamantene moy euh, moy yor baatu jigen ni tay machallah alors ku Moussa na gis Mia da ngay gis No fess ci wetam mu nekkoon ben duo bu extraordinaire ben duo bu solide tay nga wara a jaar sa yoon yow kesse def sa carrière solo est-ce que jàpp nga ni dina yomb. Euh, dama commencé woy avant may xamanteeg No fess d'accord commencé na def ay projet avant may xamanteeg mom donc yalla dafa def rek euh, sama sama sama sama nit ñi gën ma xamé si groupement boobu mais n'empêche que sama carrière solo là njëkk a démarré avant may may créer un groupe avec ak fils. Euh, d'accord. d'accord alors musique Mia ñëpp xam nañ nu démé dafa metti pour rester constante dans la musique sénégalaise dafa am lo xamante mom lay laaj surtout entourage est ce que mon ngi fi. je genre grâce à Dieu je suis bien entourée. super. entourée de mon euh, grand frère Djibril Guissé mm-hmm. bi nga xamante ci man maa tax mu créer label bu ñuy wax PDG Arts donc si label boobu laa nekk euh, mhm. muy nekk di ma produire macha allah ay nit aussi sama entourage sama famille sama ay fans vraiment c'est des gens yi nga xamante ne ils me supportent beaucoup donc man vraiment du ma du ma du ma ragal parce que j'ai un entourage solide bi nga xamante ne damay jàppale tey. ñu ñëw si clip bi Mia tout d'abord félicitations vraiment clip bi nice na message yi jàll na ak message triste son bi aussi c'est vraiment nice mais euh, bon, ñu comprendre bu baax mi ya mooy que malgré euh, affichage bu nice bi ngeen di affiché wu sur les réseaux partout euh, couple bu nice bi ñuy gis ni leen àdduna bi bëggee ni leen ñu bari di copier ñu bari def une référence vraiment si côté couple malgré tout ça euh, ngi dund lu tar lu metti le xamante ni bu nekkul woon sa doom jeex na bu yàgg maintenant à la limite sa donne bi nga xamante ni moom moo la tënkoon ci sëy bi mom mo ñëw tekki la teggil la yoon wi dal di lay rendre libre lima ci gëna triste, lo vraiment moy moment bi mu lay tekki di joy. cette partie là c'est vraiment triste quoi ñëw ci touti waaw dama doon waxtaan ak sama mhm. euh parce que Sénégal jigéen yu bari ñi ngi nek seen bir sëy di dund lu metti effectivement. te amuñu ku leen ko waxal. aji ah, sar Sarr hein aji <laughs> sar légui porteuse de voix la di day xexal jigéen ñi. <laughs>

ndax seen doom. machallah lu am solo muy muñ nekk lu rëy fa yàlla waaye nag yàlla forcé wul kenn muñ ba dee képp ku muñ muñ muñ dem ba atteindre ses limites dem ba xam ni sës nga mënatoo muñ yàlla forcé wu la vraiment nga continuer di muñ voilà. Euh, léegi les maabo jeex na nii <laughs> c'est ingémmable. lépp jeex na waay yéen idée trois ans lañ leen waroon defal. <laughs> alors Mia 2022 bi man dégg naa façon wax bu nekk ci seen diggante yow ak No Face ay mbir yu doy waar yoo xamante ni man mosuma xalaat que ni dina am ci seen couple yéen ñaar ndax image bu rafet bi ngeen ñu won li ngeen ñu jaay à travers les images li ngeen ñu won à l'extérieur maintenant dafa mel ni li nit ñu doon wax di ko laam-laamee yépp confirmation dafa am parce que Mia ak No Face n'est plus divorce am na nga def benn son ak benn clip les paroles et les images di carrément ngay carrément confirmation que ni li est-ce que mën nga ci j'ai une fille de 5 ans et par respect pour elle euh, par respect parce que émission bi ñi def dans 10 ans nañ ko c'est très bien c'est très bien de bàyyi xel li ngay télé ak internet donc du coup euh, tay lepp lu may wax fi day doon lo xamantene lu rafet lay doon. Mhm.

di wax li moom a joteeg moom au lieu moom a joteeg moom par respect pour ma fille. machallah xamna ni wajur yu bari buñ amé won respect ni ci seen doom tojaange yi bari ci réew mi dina wàññeeku. dund naag moom sëy naag mom 6 euh, années de mariage euh, presque 7 années de mariage et tay sama sama ngor ak niñ ma yéré sutura niñ ma yéré tay mënuma permettre ma tok di euh, di wax tay la moom de sama borom kër wala di di xaawi sutura sincèrement. machallah

mu xool ko am fierté nek domam am fierté sante Guissé bokk ci famille bobu non d'accord amna solo alors tout à l'heure nga mbir mu ci loxo euh fan la mbiri yi waaw ñi ngi ci procédure euh, divorce euh, civil. ok. mais euh, divorce c'est islam tas nañu divorcé nañ trois fois c'est mënatul am sama digganteeg moom. Oh. <laughs> ah mais c'est triste xoolal sa kanam bi ni triste ni ban conseil ngay jox les femmes surtout ñu nekk ci néegu sëy par rapport à la situation. Euh, maa ngi jox euh, jigéenu Sénégal ñu euh, ñu muñ parce que quoi qu'on puisse dire Sénégal dañoo yar ci muñ. Mhm. déggal sa jëkkër lu mu la wax nga def lu la tere nga bàyyi c'est vrai mais à un moment donné am na loo xamante ni da nga koy dund pour préserver wala yow pour ce sa sa psychologie doom. Mhm ñi lay entouré il faut vraiment nga jël une décision divorce neexul kenn souhaitewul di di sëy ba pare di si génn mais da ngay toll benn période boo xamante ne il faut il faut nga nga nga nga métti na mais il faut nga jël sa décision ne serait-ce que pour toi ta santé psychologique santé mentale mais euh, aussi pour sa njaboot donc ma leen di wax ñu euh, ñu ñu sëy ñu muñ bu baax a baax mais euh, muñ tamit dafa am dafa am limite am na yoo xamante ne kenn ko mu ñaale. Euh, lan ngay wax góor ñi aussi ci seen taxawaay ak seen soxna. ñu euh, protéger seen jabar yi protéger seen seen jigéen yi ah yërëm leen fonk leen ban leen teg métit am na solo alors Mia démarré na carrière solo lan ak lan lañ mën a xaar. nañ ma xaar fépp parce que tey. Je suis artiste comme je dis et je suis prête à jouer partout pour faire plaisir à mes fans. mais fu may dooree mooy sama dëkk Tambacounda foofu laa war a dooree euh, le le 12 incha allah. le 12 ba la ma ñëw invité nga ma. waaw. aywa foofu day toj ndax yàlla ma dem Tamba mosuma dem Tambacounda. <laughs> alors Mia yow kon instant bii nii euh, lépp saa yi quoi jeex na ah. kon yow instant bini, nii yow célébrer la. waaw. moi aussi. <laughs>